bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 xiiwal bum la jagleel ci biir askanu julit ñi mu boole nga bokk ci ñu joxe waxtuy julli fajar keroog bi nga dégg noddkat bi di wax ne assalaatu xayrun min an nawm julli de gën nelaw ba ngeen nekkee ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi xee ci nelaw ba julit bi di nelaw gannaaw bu mu làqoo fa buur bi tabaraka wa mu nelaw anam bi nga xamante ne dafa wuuteeg nako ko islaam jàngale ala kulli xaalin jullit bi nekk di nelaw yenentu bi sallallahu alayhi wa daf nela la saa yu la yàlla delloowee sa ruux bi nga jóg ci nelaw woobu nga yeew da war a sant yàlla ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawey mboolem xeetu cant yu mataley ñeel ne ñu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu ma faate ci nelaw wa ilayhi nushur te bu ma jeexalee dund bi ci kaw suuf si du ma dellu fenn du ma dellu ci kenn duñ ma delloo feneen wala ci keneen kudul fa moom moo tax nga déggee ci njeexantalu ñaan bi nga ne wa ilayhi nushur ba tax na tey ñu fas yéene leen dégtal xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci importance njëriñ ba nekk ci waxtu yu julli fajar ak noon bu mag bay ñëw di gàllankoor jullit bi nga xamante ne moo tënk boppam ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamono bi nga xamante ne waajal na boppam ngir mu yeew jóg ci nelaw woowu ngir mu dem joxe la nga xamante ne mooy farata julli waxtuy fajar wala waxtuy suba yonent bi nee na xew-xew bu mag mooy xew diggante jullit bi ak noon ba ñu yàlla bàyyee ci dund bi te mu tudd seytaan moo tax yonent bi ne jullit bi ne bàyyil sa xel ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yacqidu sheytaan ala qafiyatin ra'si ahadukum ida huwa naama thalaasa uquda yenentu bi sallallahu alayhi wasallam nee na xam leen ne cheytaan yi de dina ñëw kenn ci yeen jamono bu mu nekkee di nelaw mu daal di takk mu daal fas ci boppu kenn ci yéen jamono bu mu nekkoon di nelaw ñetti takk-takk ñetti fas la seytaane di ñëw di takk di ko fas di ko yeew bopp kenn ci yéen jamono bu mu nekkee di nelaw waaw yonentu bi yadribu kulla uqudatin alayka laylatin tawil nee na bépp takk-takk lépp la seytaane di yeewu ci jullit bi day tax guddi bi day doon guddi bu gudd ci jullit bi walla diiran guddi bi yëpp seytaane day fexe mu yeewu jullit bi anam bi nga xamante ne du mun dara la muy jëf ci guddi bi moone guddi bi dafa doon espace bu am particularité soxna mari bu dee noonu la ci langage nasaraan waaw dafa am xususiyaat dafa am la yàlla jagleel ñay jóg guddi ñuy am lañuy ñuy déyanteeg seen boroom seytaane nag day bañ loolu di antu ba tax na day takk lenn ci jullit bay waaj a jóg ci guddi ngir mu am la mu jëflanteeg boroomam seytaane yonent bi ne nañu day ñëw mu daldi takk ñetti takk-takk ci bopp jullit bi waaw diiran guddi bi yépp yonent bi salaa sallam ne ñu fartaqad na takk-takk yooyu noonu nag la koy dindi lay tax ñuy fecci mooy lam ñu bëgg tegtal ni sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na fartaqad fa in istaqayta fa in istaqayta nee na bokk na luy fecci yeew takk-takk yooyu seytaane yeew jullit bi walla takk-takk yooyu seytaane takk jullit bi nee na bokk na ci liy fecci takk-takk yooyu wala yooyu mu yeew jullit bi bokk na ci lu koy firi mooy fa inistaqida fa idistaqida nee jullit bi bu yeewoo ci nelaw fa zakara mu tudd yàlla in xalat uqdatan yonentu bi nee dinga gis ben lenn li seytaane takk jullit bi mu daldi fecci seytaane yeewu bi mu yeewu jullit bi ci guddi bi nee na bu jullit bi yeewoo ci nelaw mu tudd yàlla masalan nga yeewu ci nelaw nga ne laa ilaha illa allah yonentu bi nee seytaane takk nee na loolu firiiku ne fecc na walla julit bi yeewu ci nelaw mu ne subhaanallah wa bihamdihi laa hawla wala quwwata illa billah ba nga yeewoo ci nelaw yaa xam baat boo munti tudd mu doon tur ya yàlla méngool boppam tuuram yu sell nang ci tudd benn tuur ci turu yàlla yi ndax moo ne walillahi l asmaul xusna fad'uuhu bihaa ñeel na yàlla ay turu yu rafet ci bari lool na ngeen ko woowee ci turu yooyu kon yow jullit bi jamono yu nga yeewoo ci nelaw nanga tuddu tudd lenn ci turu yàlla yi yonent bi nee na n'importe quel turu yàlla ba nga tudd rekk loolu seytaane yeew ci jëmm jooju nee takk-takk boobu wala yeew boobu seytaane yeew julit bi day daldi di fecci day daldi daal fireeku mu doon benn la seytaane takk julit bi waaw boo tuddee yàlla jamono bi nga yeewoo ci nelaw rekk yonent bi nee na am na takk bu fireeku am na yeew bu fecceeku waaw loolu seytaane yeew loolu seytaane takk ci julit nee loolu fireeku na yonent bi nee na ñaareel bi mooy fa in tawaddaa in xalat uqdatan bi bu jàppee nga dem ci toilette bi wala nga dem ci gànnuwaay bi wala nga jël jàppukaay bi nga daal di jàpp nee ñaareelu takk ba yoon ba seytaane takk jullit bi yonent bi nee na loolu firiku na na waaw ñaareelu yeewu ba seytaane yeew julit bi yonent bi nee na ñaareelu ba seytaane yeew julit bi ñee na loolu tamit daal dina fireeku jamono bu mu jàppee ci guddi mu ne ñetteel bi fa in salla in xalat uqdatan nee na bu jàppee ba julli a xamante ne ñaari rakka mu julli yooyu tamit day tax yeewu ba seytaane yeewu jullit bi takk-takk ya seytaane takk jullit bi jamono bu mu den nelaw yonentu bi nee na ñetteelu takk bi ñetteelu yeewu bi daal dina fireeku su ko defee ñetti yeewu ba seytaane yeewu jullit bi ñetti anamu takk yamu takk jullit bi bu yeewoo ci nelaw mu tudd yàlla benn takk bi fireeku na bu jàppee ñaareelu takk bi fireeku na bu jullee ñetteelu takk bi ba ko seytaane takk fireeku na ñetti yeewu ba seytaane di yeewu jullit bi yonent bi nee bu jullit bi ximmilikoo ci nelaw mu tudd yàlla njëlbeenu yeewu ba seytaane yeewu jullit bi fireeku na bu jàppee ñaareelu yeewu bi fireeku na bu jullee ñetteelu yeewu bi fireeku na yonent bi ne bu xëyee nag jullit boobu day nekk jullit bi nga xamante ne day ànd maanaam day doon ku mise à jour jëmmam moo tax yonent bi ne fa asbaha nashitan jullit boobu mooy xëy mu doon ku sawar ku am activité tayiban nafs nga xamante ne bakken bu laab lay xëyee waaw wa illa bu defut nii ah asbaxa xabiitan xamal ne jullit boobu de yeewu na ci anam bi nga xamante ne anam bu ñaaw la nafs kaslaan moo tax mu ne bu jullit bi defut digle yamu digle nii moo tax mu ne wa illa bu defut digle yama ko digal nii ci luy jiitu ah asbaxa xabiitha nafs dina xëy bés boobu mu ànd ak bakken bu taq ay salte kaslaan mu doon bakken joo xamante ne mooy bakken bu sàggane kon mbokk yi képp koo xamante ne bugguloo bokk ci ku yeewu nga doon bakken bu taq bakken bu sàggane bakken bu tilim nanga diglu digle ba yonent bi joxe ci maana hadis bi boo yeewoo ci nelaw nanga nga tudd yàlla boo tuddee yàlla jógal dem jàppi boo jàppee nga daldi julli ñaari rakk ci diggante bi bu dee da ngay jàng alquran nga jàng téere bi bu dee da nga nekk di toog di tudd yàlla na nga def ba keroog ñuy noddu su ko defee yonent bi nee na kooku mooy julit bi nga xamante ne mooy kiy xëy bés boobu mu nekk nachitan tayyibun nafs mu nekk koo xamante ne day doon ku sawar ku mise à jour jëmmam mu doon ku ànd ak bakken bu set bakken ju laab nee na nag wa illa asbaha xabiithan nafs kaslaan kooku mooy jëmm joo xamante ne day yeew nekk jëmm ju bakkenam taq salte ak tilim mu doon ko tayal bés boobu xadis bi mu ngi ci saxiixul buxaari mbokk yi yal nañu yàlla may dégg topp yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot maana xadis bi la mu wundu yal nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi ñenaa ngi fàttaliku ba léegi ñu ngi ànd yéen ci waxtaanu fajar ba yee jaar fii ci réew mi fm 97.5 ñu ngi àndoon nag yéen ci waxtu yi génnee azak ba ñu yàlla may ñu fekkee ko tal ko ci atum jullit ñi muy weeru nga xamante ne mooy weeru muharram incha allah xam naa ne ñàkkut ñu nekk ci njomboxtalu weer wi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala at bu bees bu ñu nekk ni yal nañu ko yàlla defal atum naataange waaw yéen ngi fàttaleku nu ngi taxawoon ak ci joxe fii sabilillah joxe azak joxe ci yoonu yàlla yàlla rekk tax ngay joxe yow jullit bi yàlla buur bi tabaraka wa taala ca suratul baqara mu ngi wax melokaanu jaam yi nga xamante ne ñoo fi nekk di joxe fi sabilillah seen melokaan na ko yàlla melale keneen ku dul yàlla munoo joxe melokaan wala munoo ñoo eh, jox melokaan ju mel nii la aaya bi andi critère ba mel nii la aaya bi di waaja andi amul kenn ku ñu ko war a mën a distinguer amul kenn ku ñu war a mën a wax critère bi ni mel ku dut yàlla ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo njëkk a joxe critère ba mel ni la aaya bi di waaja andi nii amul scientifique ba ñu ko andil ndax xamuñu ko amul buxaaba ba ñu ko war a mën a wax ndax dañ ka xamul amul gisaane kat ba ñu koy war a wax nag ndegem ñoom it xamuñu ko ba tax na yàlla moo ñu ko wax ndax moo ko xam critère ba nga xamante ne mooy melokaanu gaay yi di joxe fi sabilillah kon képp ku bëgg a xam melokaanu gaay yay joxe seen alal fi sabilillah ñay joxe azak ak li ni ñu bàyyi xel ci réew mi fm waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu ji bur yàlla ne baada audu billahi min alsheytaan arrajim mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka mathali xabbatin anbatat sabca fi kulli sumbulatin miatu xabbatin wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasiun alim mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ni di ñu wax di ñu won di ñu joxoñal di ñu tegtal di tabal garaat ju kawe ñan la ko buur yàlla di tabal jalla wa ala mooy ñey joxe fi sabilillah ñey génnee seen azakay alal ñuy financer projet islam ñey taxawee diine bi ci seen alal yaleen yàlla dénk ñoom la yàlla jox melokaan bi ni mel critère bu noobul bi càlla wala mbokk yi nañ leen bokk déglu la aaya bi di joxoñ fi ci ñay joxe seen alal ngir yàlla waaye ñay génne seen zakkay alal bur yàlla ne masalul ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah melokaanu gaa ya nga xamante ne dañuy nangoo joxe seen alal ngir yàlla yàlla ne ñooñu seen melokaan mu ngi mel ni ka matali mel ni béykat bu ji benn pepp an batat saba asana bi benn pepp bi daldi meññ génne juróom ñaari gupp du gupp waaw yàlla ne fii kulli sumbulatin mi atu habba benn gub dugub bu ne ci juróom ñaar yooyu yàlla nee na mu ngi composé téeméeru pepp moo ne yow mi ji ñaata pepp nga ji ñaar walla ñett bu gënee bari juróomi pepp nga ji ci suuf si yàlla nee na loolu meññ mu am juróom ñaari gub juróom ñaari bant dugub benn bant bu ne yàlla nee na ma composé fa téeméeru pepp pour nit ñi war a mën a comprendre yàlla daal di andi bi ci anam bu mu gën a yombee ndax ku mel ni mën ak yow ak keneen ñu war a mën a comprendre la yàlla bëgg a joxoñ fii waaye xam nañ ne benn gubb dugub ëpp na téeméeru pepp waaye njàngale yàlla moo ni mel kon bu fi gaay nekkee di coow mat a ah, xam nañ ne xam-xamu mat de alquran moo ko njëkk a installé installation boo xamante ne aka neexoon ñëpp xamee ko ni ndax diine bi da diine bi nga xamante ne diine bu noble la diine bu jekk la diine bu matale la te ci yàlla la jógee du xel du xelaat waaye texte bu leer la buur yàlla ne yow miy joxe sa alal fii sabilillah di ko jox ngir yàlla di ko jox ngir yàlla la digal ne nanka jox ci fa mu bëgg yàlla ne la loolu ngay joxe dafa mel ni rekk béykat ba jël pepp dugub ba muy ji mu daldi ko ji pepp di meññ di meññ di meññ ba mu taxaw bu pepp bi taxawee mu daal di nekk gub dugub bi nga xamante ne juróom ñaari gëtëx dugub lay meñ benn gëtëx dugub bu nekk wala benn gubb dugub bu ne yàlla nee na ma ngi ci composé téeméeru pepp waaw juróom ñaari bant dugub yooyu yàlla nee na ma ci composé benn bu nekk téeméeru pepp kon boo ko calculer xoolal ñaata ngay am te yow benn nga ji wala ñaar bu gën a ëpp bëriwul ëppul juróom ya nga ji bala yàlla di fay juróom ñaar la la commencé fay bi téeméer yàlla neena fi fii kulli sumbulatin mi atu xabba bépp gubb dugub yàlla neena na maa ngi ci composé téeméeru pepp yàlla ne nag boo ko comparé par rapport ak li nga ji kon yàlla nee na wallaahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne yu daifu mooy yokkal li man yashaau képp ku ko soob ndax yàlla mooy wallaahu buur la boo xamante ne waasi on ku yaatu la aliim ci xam-xam bi nga xamante ne doomu aadama yi lottu nañu mënuñoo peek xam-xamu yàlla fu mu tàmbale ak fu mu toll ba ñuy géem a xam fu mu jeexee jalla wa moom rek moo xam la mu doon moom rekk moo xam xam-xamam ni mu toll waaye doomu aadama lottu na télli na pour xam xam-xamu yàlla ni mu toll moo tax yàlla ne wallaahu yàlla waasiun aji yaatu la alim ci xam-xam ba doomu aadama yi di jëfee ak xam-xam bu muy jëflanteeg doomu aadama yi kon képp ku bëgg yàlla fulandil sa jëf ya ngay jëf wala langay ngay joxe fi sabilillah na nga bàyyi xel aaya alquran ba nga xamante ne mooy masalul ladina gaa ya nga xamante ne seen melokaan melokaanu gaa yaa ngi nii ñoo xamante ne yunfiquuna dañuy dépensoo dañuy nangoo financé amwaalahum seen alal fi sabilillahi fa yàlla sopp yàlla nee na ñooñu seen melokaan mu ngi mel ni ka masali habbatin ni pepp bi nga xamante ne ji nañ ko an batat mu daldi meññ saba sanaabil juróom ñaari gubu dugub yàlla ne fii kulli sumbulatin bépp gubu dugub boo gis mi atu xabbatin téeméeru pepp lañ ci laxas ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne wallaahu yalla mooy buur ba nga xamante ne yu daa'ifu yokkal liman yashaa'u lu ko soob ak ci ko soob ba léegi bokk na ci mandargay yàlla wallaahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne waasiun aji yaatu la alim xam-xamam bi nga xamante ne moom la yore xam-xam ba nekk fa moom kenn xamut nu mu toll kenn na mënu koo xam tamit subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla ñu yàlla xiir mu di ñu dimbali ba ñuy tënk suñu bopp ci li nga xamante day doon lamu mu sopp mu doon lamu mu bi léegi mbokk yi yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ngi ni di wax yonentu bi sallallahu alayhi wa ci alquran ca saar bi nga xamante ne mooy suratul tawba bur yàlla di wax yonentu bi ne ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli inna salaatuka sakkanun lahum wallahu samiun alim bur yàlla ne yonent bi ne xuus jëlal min amwaalihim ci seen alali sadaqatan sarax joo xamante ne mooy seen azakay alal tutahhiruhum da leen di laabal wa tuzakkihim da leen di sellal bihaa ci loolu nga leen jël wa salli alayhim nang leen ndax inna salaataka sa ci ñoom de sakkanun lahum loolu mooy la leen di dalal wallaahu ndaka yàlla de wallaahu naka yàlla samiun bur la bay dégg la ngeen di wax ci kaw ak la ngeen di wax ci suuf alimun aji xam la la ngeen nekkee kon ba léegi mbokk yi ñu gis ci aaya bi la yàlla digal yonent bi ne ko xuus jëlal min amwaalihim ci seen alali waxu ko ne na nga jël seen alali da ko ne min amwaalihim ci seen alali jil fa len loo xamante ne day doon sadaqatan sarax sarax ba ngay jil ci alali ña woomle lam leen di defal mooy tutahiruhum da leen di laabal waaw da leen di laabal day laabal sa bakken ci soxor day laabal sa bakkan ci nay day laabal sa bakkan ci siis day laabal sa bakkan ci bëgge wa bi biha day sellal sa bakken ci salte bu ngi naan bëgge day laabal sa bakkan ci salte buñ naan siis day laabal sa bakken ci salte bañ naan soxor waaye day laabal sa bakken ci salte bañ naan nay ak li ni mel waaw moo tax mu ne ko wa tuzakkihim biha mooy la leen di laabal te lay sellal say seeni bakken boo ko defee ba pare wa salli alayhim nang leen ñaanal waaw nang leen ñaanal inna salaataka ndaka sa ñaan ba nga leen di ñaanal sakkanun lahum moy lay dalal seen xel wallahi képp ko joxe fi sabilillah ba yonent bi ñaanal la yow sa gannaaw bandang wallahi yonent bi ñaanal la nga am occasion yonent bi ñaanal la loolu moom yaakaar la boo xamante ne képp ku ko am am nga lu rëy yàlla ne naka man yàlla samiyoon aji dégg laa joxe ba noppi la ngay wax dégg naa ko de ku joxe wut waaw sa ñàkk joxe bi tamit la nga ciy teg ci kàddu xam naa ko de waaye alimun aji xam laa képp ku joxe la nga joxe xam naa ko képp ku bañ joxe la tax nga bañ a joxe xam naa ko amul dara la ma ump ci seeni mbir yama leen digal te ma ne yonent bi na ko jëflante ki yéen kon yow mi nekk di dund ci jamono ji xanaa du di laaj waaw yonent bi nekkul ci jamono ji léegi nañuy joxe suñu alal te yonent bi duñu ñaanal ñu ne la axakañ yow joxel sa alal fa ko yàlla sopp waaw buntu baa ngi ubbeeku buntu ñaanu yenentu bi tamit mu ngi nii ubbeeku nanga xam ne dañu dañoo jël dañoo ràbbaloo joxe fii la ak ñaanu yenentu bi dañoo am relation boo joxee fii la nga joxe sa asaka yi alal nga saraxe nga dimbale kootane xamal ne ñaanu yenentu bi dalay dal ndax joxe bek ñaanu yonentu bi dañoo am relation dañoo am correspondant dañoo am relation dañ leen synchroniser synchroniser waaw soxna mari bi léegi maa ngi ñaan nga defal ma intervention ci ah, taalibe nasaraan yi bu dee noonu la dañ leen synchroniser waaw yow miy joxe ak nangu ñaan ba yonentu bi ñaanal ña doon joxe ci jamonoom bi léegi dañ kaa synchroniser ak joxe ba nit ki di joxe te yàlla ne nga ñaanal kay joxe fii sabilillah kay joxe ngir yàlla kay jënd moket di ko yóbbu ci jàq ji kay taxawee néegu yàlla yi kay jël alalam di ko rataxalee mbokk bi kay jël alalam di ko dimbale woy néew ju doole ji nga xamante ne yàlla dakaa nattoo ñàkk walla mu doon miskin kay taxawee nit ñi ci seen soxla kooku noonu wallahi yàlla ne yenentu bi ñaanu yenentu bi médité na ngir mu dal ko waaw noonu la ñuy déggee aaya bi moo tax mu ne ko wa salli alayhim nang leen ñaanal ndax inna salaataka ñaan ba nga leen di ñaanal sakkanun lahum mooy la leen di dalal mooy la leen di apaiser du ñàkk seytaane dina ñëw muy ruux seeni xol di fa installer mbëggeelu alal cofeelu alal waaw mu di si installer yooyu ba nga xaw a rëccu la tax nga joxe moo tax yàlla ne ñooñu bu ñu joxee yonent bi nag leen ñaanal ñaan boobu nga leen di ñaanal mooy dalal seen xel ba tax na seytaane bu ñëwee ak lam leen di jax-jaxal du leen munal dara kon nii la ñuy déggee aaya bi su ko defee mbokk yi Rewmi FM 97.5 lii la leen andil ci waxtaanu suba si waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar yaa ngi ni taxaw ñu war leen jibbal béréb bi nasaluka allahumma an yarzuqana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahumma ya rabbi aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa